sabar ci ndigalul xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir ci kilifteefu Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr association Nasrou 18 Safar ñoo leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal màggalug jàmm Nasrou 18 Safar di kuréel goo xam ne dañ koo sos ci ndigalu Serigne bi di taxawu ñi nga xam ne accident di leen di dab ci yoonu tubaab bi ci màggal gi bu ñuy ñëw wala bu ñuy dellu te accident yooyu bàyyeekoo ci oto yi Nasrou 18 Safar fas yéene leen taxawu ci wàllum paj ndax réew mi nga xam ne moom lañ nekk day réewum néew ju doole te it lool Nasru 18 safar taxaw ngir yàlla jëmmi Sëriñ Tuuba ci képp koo xam ne loraange gunu mel dal na la ci yoonu Touba bi ngir ñu taxaw dimbale la ci wàllum paj di sàkku mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ñu dugal ci seen loxo ginnaaw bi ci sëriñ Mountakha Mbacké Bachir joxe ndigal def ci alalam ak sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Khadr ngir yéene gi ñu am ci mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ba di leen taxaw su ñu amee accident ci yoonu Touba bi muy dem beeg dikk bi association Nasrou 18 Safar fas yéene leen taxaw liggéey bu ne mel nag ñu ngi ciy 77 628 58 92 wala 77 519 02 87 wala nga bëgg a barkeelu par Orange Money nga def dièse 144 dièse 625 dièse Nasrou 18 safar di leen ñaanal màggaluk jàmm di ñaanal mboolem taalibe yi ñu ñëw ci jàmm dellu ci jàmm.